probio naturel mbokk yi seen jaaxle ndax probio naturel daf leen indil ñaar ci ay de bio 100 naturel ñu defaree ko ci gàncax bi maa probio naturel daf leen indil probio naturel alde muy produit bi nga xamantane renforcé, daf lay renforcer carrément ci walu sëy tagalé la ak ay jafé jafé new katan ay mbiri tële nag moom koy probio naturel simpi bi Binak bi nak moy yaram ci walu yax manam, bolem lu ngeen amone ci ay jafé jafé ci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 Au campus Au campus Be ma dage bag be la mon campus ش ي boy bis ba arna ba tay mom lu ma la soxla soxla bu ma yitel la bu ma ñor la. hmm ah, c'est à propos de quoi. dafa am lo xamante ni ñun ñi nga xamante ni ay étudiant lañ ñom daf ñu war quoi parce que dëkk bi doo toog rek di xaar lan la dëkk bi mënal mais yow tu dois te demander yow man lan laa mënal dëkk bi parce que boy ñun ay étudiant lañ quoi te ñun nous sommes l'avenir de demain aduna bi. réew mi dafa dafa yaakaar si ñun pour benn xam nga benn changement bu nga xamante ne nii dañ ko war a apporter ci town bi fii lay commencé ñun du ñu xaar ba nekk dara ci réew mi pour war a def mais moment bi ñu nekkee ay étudiant dañu war a woon suñu réew que ni ñun vraiment non am na lu ñu bëgg quoi. selon yow lan nga indi comme contribution lan nga indi comme valeur ajoutée laa bëgg a wax. certes école bi nice quoi université bi cool na ñu war a def ñu ngi def. Kurus ñu ngi def liggéey bu ci ayib mais dama gis ni ñun mun nañ ci dolli quoi parce que sali salubrité école bi pour man ñun ñun war nañ ci mën a participer bu baax a baax a baax. li ngay wax am na solo trop mais tey jii constat boobu ngay wax man def naa ko mais selon yow lan nga yaakaar ne buñ ko doolee ci biir campus bii nii cadre de vie bi dina gën dina gën a accueillant daal dina gën dina gën a belli daal comme ni ko booy di waxee. seetlu nga leen pavillon jigéen yi boo fa duggee booy chambre boo romb bàyyi xet bu neex moo lay dal seen toilette yi nickel mais ñun même bu kurus liggéeyee ñun parfois ñun góor ñi ñun ñooy yàqu quoi te parfois man je me dis que ni war nañu gën a mën a jàppaat ci affaire bi xam nga def benn benn benn mouvement communautaire bu nga xamante ne ni lépp luy salte lépp luy tilim tilim lépp lu nga xamante ne lu ñaaw ñaaw ñaaw la ci campus bi ñun war nañ ko mën a dindil suñu bopp te duñ ci xaar boo yeewoo six heures du di nga fekk mairie bale ba mu set buntu pavillon bi di nga fekk mu nickel toilette yi ñu raxas lépp saal boo fa demee doo am benn problème donc yow lan nga yaakaar ni moom moo war a indi problème mais duusu góor moom tamit bu xawee mel noonu munul ñàkk xanaa yenn góor yi dugg rek duñ ci def ndoxte yooyu noonu xam nga rek kenn ku ci nekk ak kër gi nga yoroo kenn ku ci nekk ak saayit bi nga jugee yenn yi moom da ko koy accepter parce on est différent et moment est moy à charme àdduna Je suis venu dafa rafet quoi ça c'est tout beau lii de mën que ko débuté depuis début d'année parce que ça me fait plaisir de t'accompagner mm-hmm. et déjà pour une devoir de devoir, saa yu Ça wàccee maa la yóbbu ba sa aller. d'accord. problème on y va. non attends Seydina Yo, c'est l'image de la classe, nous son Mais comment Mais comment en fait. D'ailleurs, je ne peux pas comprendre. Jean. Jean, Adelangini, de Fareo, pisse pas. Khalil, moi je ne peux pas comprendre. Classe devrait dire complètement. On est censé être des frères et sœurs, mais là c'est déplorable en fait. Je ne peux pas comprendre. Vous voyez, vous avez des classes, des ça des au tribunal en plus tu me parlais d'Adèle Adèle man le positif le ma quoi peut-être yéen mën na mën na wal leneen mais man ce qui m'intrigue dans tout ça c'est le groupe de PISPA je ne sais pas ba gis lu ñuy def Khalil en plus Khalil gis na fu ma toll Khalil baax na yaru na jàng rek a fi indi en plus il est social imagine-toi ces genre de personnes nga ñëw à chaque instant si université bi di ko bundu xataal di ko carfonné di ko wax lu ne di ko dugal ci lu ne. man loolu c'est ça qui me fait mal classe bi yëpp loolu moom si gën a métti à part ça man nañ jàng quoi anyway parce que ñun xamee nañ jàngkat yi ak ñoo xamante ne fii ñëw ko def imbécile di chamailler mal vraiment. yaakaaroo ni aussi lépp lu jigéen mën góor ko ko war a mën a daax. loolu moom dëgg fu jigéen mën a fompee ay loxooy fomp kon ñun tamit ay góor lañ am nañ doole bu ñu mën a fompee pourquoi pas ñu jënd ay xama ay ay déodorant ay javel di ko dugal ci chambre yi képp koo xamante ne nii am nga lu tàkk ci yow. wala am nga lu tilim ci yow nga fompal ko sa bop nga bañ ci xaar kenn quoi man dal boy ma la waxe deug bay plan fo romb mu set te xeeñ lu neex la bëgg ñu indi ko campus bi. wax deug ci yalla li nga indi comme proposition man yag na ko xalat quoi te affaire la bu rafet parce que tay étudiant bu melni yow dik gis que ni université bi warna mëna gëna avancer warna gëna mëna nice nga indi proposition bi ta nek délégué man ak yow suñu classe donc lolu war nañ ci mëna job te buñ ci joobee dina doon benn avancement boo xam ni université bi ñëpp ñoo ci yëg seen bopp te fii am na ñin ñoo xam ne moom leen rek la ñuy xaar ku jug def ñu ànd ci ak yow parce que bëgg nañ def quoi mais am na ci ñoo xam ne moom dañuy xaar ba peut-être délégué yi wala administration bi jékki-jékki proposé leen leen lenn nag laal la ciy dooleel affaire bu ndaw idée bi nga teg leer na te set na mën na génn aussi xaalis aussi tamit nga avancer le campus bi. denk surtout pas mu koy jël en main parce que ku xam xam ma xalil guerre bi nekkatul xalil ak ñoom pispa mais pispa léegi tim xalil la ak tim pispa tu m'as déçu mais comment xam ne da ngay saaga mais c'est pas question de saaga ya mais ñi dañuy bonal sa xol en fait tu l'as fait devant moi parce que mën naa ko muñ mënatuma ko muñ mënatuma ko muñ ngay saaga bébé génn ci cas boobu leneen laa la bëggoon c'est pour pour yëgal la que lii nii léegi sama xeex la dañ xam ne ñan lañu amal affaire ñoom ci aussi na nga waxal sa gelu xarit boobu noonu adel moom laay waxal wax ko dëgg mais comment nan laa koy waxee dëgg nee naa la man wanuma lii yow moom ñu xam ko ñàkkaa xam ñoom ñoo gis loolu ma adel lu ma gis si moom mooy travail bi dynamique bu muy def si classe bi en état responsable daa gis keneen ak keneen di wax jouer beneen rôle et parce que ñoom ñoo bëgg gis loolu ñoom ñoo bëgg pointer le doigt à n'importe quel quel étudiant si classe bi et pourtant sommes une classe une classe exemplaire la l'université. doon université bi PCS classe bi am nañ classe bi te am nañ responsable dynamique nous son rôle donc pourquoi pas nous nous quoi avancé nga xam mais si à chaque instant ñu ngi nous nous avons sama du ko Nous on y va. mais non arrête. il quoi. tu te crois permis. non mais attends là lan la lu xew. nee naa la bi université vous jàppat sama loxo. ba tu comprends pas saay pourquoi pas nga bàyyi ma dugg ci politicien yi booy ni leen campus maa ko yor dajale leen gan di organiser benn set setal bu mag fii hey ñu jëndal ma ay bale jëndal ma ay ratu jëndal ma ay poubelle boy ñu teg ko ci kanam campus bi suñu démé dimanche buñu footballé ba paré gaay yi génn même bu nañu def ben nettoyage bu ndaw boy dang ki am xaaliss bu bari boy man xam na la. Hmm. <laughs> yow jublu wo ci liggé kese am nga ci loo ci bëgg ko. ah mais tamit nak boy ki si frotte si pic boy mag du bu dee naan lu tang sugar sa tax. dawal leer sax boy kuy xalam di jaay man mom côté bobu géré def lu bax amna dé mais tamit dóoraale ci gaañ daw frotte. xam nga ni lay wad indi na fi guana ñu pare mu indi plan tàkkal mais booy lii yaa ko moom foo romb mu xeeñ. plan foo romb mu set tey xeeñ lu neex. jeex na tey alaaji. <laughs> léegi xoolal da ngay libéré daa am benn show bu may coaché fii war a flexé baay. muy soppi sa jikko del flexé rek rek nag baay ba nga <laughs> doo changé doxal jëm ca <laughs> teg nga lu leer nag mais baay sax si xel mi nga teg dama ciy tegaat xel. noonu li dafa war a mën a génne jiis bu bari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

dootoo xaar ma instant yi boo bëggee dëgg-dëgg dama la talul naar bi yóbbu sama vingt mille francs yoo xamante ni deux semaines laa ko dajale xamul lu ma jë bëgg moom it mu jël ko yóbbu ko man kooku laa tal xaar ma ci biir sama naa la wo ah? mais man damay damay gént wala la yow nga woo ma ma ne ma tu as besoin d'explication man ma bàyyi lépp li may def jóge jóge sama appartement ñëw ba sa ba sa logement pour expliquer nga ñëw fi toog dama wax dama wax na dama wax ay waxu naar kon yaa ngi taxaw ba léegi saa man maa la woo mais dafa am loo xamante ni dafa xew ci diggante bi muy naar bi yóbbu sama xaay doo ma may tuuti rek sama pare ma wala. mayuma la man fii maa fi du respect une minute de plus dama lay wax li ma wax ma jaar dem sama yoon est-ce que xam nga ni yow ku yabaate nga ku ñàkk respect yow de un man je sais pas man nan laa def pour bi ma waxee que ni tu as besoin d'explication ma gëm la sérieux ñoo ànd yow déjà tu n'as pas tu tu n'as pas l'allure et le comportement d'un bon étudiant pas bu toll ni yow nga toog fi nga naan da ngay da ngay da ngay jouer ay pari foot lii lii nga yaakaar lii c'est normal. xam nga la mën a réer yow maanaam bu ñu nekkee campus nga yaakaar ne man li may dundee di ko lekk kanaan laa koy jëlee yaa ngi sol ay yére yu baax man may sol yére yu baax mais yére yi may sol gannaaw yàlla si naar bii laa koy jëlee kon nit du ma ko bàyyiloo ma lekk joxoo ma naan dama laa pour nga expliquer ma da ngay xaar ba ma pare ma man kii moom laa yaakaar lu ma lekk si moom moom laa ko jëlee lu ma naan moom laa ko jëlee li may sol tamit moom laa ko yaakaar kon dama ko yàqal suwaay xaar ma ci biir su ma pare naa ñëw expliquer rek nga wax ma ah Fatima depuis cinq maa ngi fii je te vois et dama gis ne kii sa xarit boobu noonu dañ ko yóbbu infirmerie Badiane. ah chérie waaw dafa xaw a feebar ba nekkoon ci infirmerie bi loolu moo tax. Hmm, am na garab. waa garab bii nag moom laa nekk nii di xool naka lañ def pour jënd ko. da ngeen yorul xaalis. woote woon naa dëkk ba mais ba léegi amagul retour. kii moom wax dëgg yàlla situation bi man su ma ko xoolee dama koy yaram. Mon Philippe, il est malade depuis lycée de la mais bon ça va aller Inch'Allah. mais bon y il a le non? ça va aller mon concernant mhm. je pense que da nga war a dem wax ak mm. vu que l'on la il est là pour les étudiants et surtout pour les personnes comme ça et je pense que boo mm. il fera quelque chose pour lui ah tu crois que dina si mën dara. bu ko mënul la fay yëpp sax man je pense que il fera de son mieux daal pour jàppale parce que loolu mooy rôle am fii. defal loolu. mais bon kon toogaay amatul ha ma dugg légui dem xooli ko. d'accord defal loolu. merci Stéphanie pour tout. d'accord merci beaucoup à tout à l'heure. c'est vrai que cette fille elle ne me plaît pas du tout mais bon sa situation moom le temps du moment, franchement c'est un peu compliqué yërëm à ko trop boko yakare yaakaaree tu pouvais me le dire d'une autre manière bo xamanteni c'est plus respectueuse mais Li, c'est c'est irrespectueuse ba pare yow Li Li nga xamanteni ni ngay jël di jouer li amu muju tu dois sûrement avoir des frères et yow tu dois leur montrer le bon exemple bon exemple bi nga len di woné moy nga arrêter li ngay def te imagine yow tay xaliss bi ngay gagner di dajalé yow peut-être certes mën nga ko dajalé mais les autres mënuñu ko dajalé say rakk buñu ñu suivre le même pas que toi amuñu benn source de revenu fuñu jëlé xaliss bu ñu demee jouer perte gisaat beneen gain bu gën a bu gën a bu gën a bari mais bu ñu gisul xaar dañuy dem sàcc ko. oh ci biir campus am na étudiants yoo xamante ne dañuy raxas ay daal ñi dañuy wat. man dur naa ko raxas daal yow. boobu nga ñàkk jom na. waaye baay ba ma ba ma waaye tamit nag. jaay man lenn laa la ah. que ce soit la première la dernière fois nga may woon naa ma dama soxla ay explication est ce que dégg baax li ma la ñàkk jom bay bëgg a dee ko waay. yow yow yow xool ko yambaraaya muy wiic yow booy yow lu ma sa problème da ngaa comprendre rek man ki lima ma mënti ma mënu moko su si yow danaa ci kàmb bi yamba su suba ngoon waxul wax yek singa ci kër gu amul ndey ya ak baye jang am tek moñu fi baye kay suñu di traumatiser ko yow tout le temps tout le temps di man la tête ne serve uniquement pas à porter des choses xel du jëriñ lu xalaat mais yow dof rek nga xalaat si nga si nga yow ci wom xam nga li moo tax man ak yow mënuñu juboo waaw jëlal ci loolu par contre man dama dégg gars yi démb naan mm. ndax affaire bu def dafa ton bu ñu remporté ni ñu ngi organiser benn soirée mais loo gisee loolu yow c'est normal il faut que ñu fête victoire bi quand même mais xam nga ni nit gisu ni ñuy demee université. Hmm. te fête boobu warul mën a yomb a dama ko yaa xam ne moom franchement parce que samay dégagement rek samay sañse. ñoom suñuy sañse. maa leen mën foofu ma seen morom. donc hmm. man à chaque fois fi ngay toog di demande ay naan nu may machine fii muy jiitu fii di. kërëb kërëb nan laa war a sañse ndax lu ma jot a sañse daa bëri de. bon puisque soirée bi c'est quand c'est quand laaj naa la ko dem nga xamante ne chaque jour yaa ngi ñoom. donc on a le temps d'ici demain ñu xool la la ñuy la la ñuy jéem a aligné rek. bu ñu yor lu ñu jënd. man daal lu ne lu ne sama bopp bi. Khalil am na sax moom tey. mais kooku moom sañse moom war a jaaxal kooku laay xool man man ak moom nu may def ak moom. il faut que il faut que il faut que il faut que ñu consulter ko de. xam moom aussi dafa mën a sañse. xool xool nga waaye xool xool. lil xaa. dégg nga mooy Khalil. xam moom ay état d'âme la yor. Halbe. man tamit fokk nag ndax kii Khalil sûrement dina ànd ak Fatima wala l'autre la Adel sûrement moom lay àndal te kii moom tamit du pat man tamit du nangoo pat foog mu wut ku ma àndal ça va être compliqué nag ginnaaw suuf mais. xam naa ta sonja Allez. Boy, je t'ai chercher partout. Boy, je suis là. Tu as l'air triste là, là, là Dara. Non, attends, boy, tu n'as jamais été comme ça, boy. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe Donc, c'est à propos de la famille ou pas Bon, c'est pas ça. Juste que Donc, Bougon n'est que mon caisse. T'as des nouvelles de ta mère bien de ton père Qu'est-ce qui se passe dara parce que bu dara la dina la ko wax quoi man ma beug ma beug nek seul rek motax mo ma ñëw toogee voilà bon dara. mais booy ça m'intrigue je me disais nga nekk état bi et toi tu sais très bien que bon je ne, vois pas quelle raison tu pousse à être dans cet état. tu manques de rien, je te jure. Je manque de rien. Pape, vraiment de mon bug. En plus de ça, merde aussi. Mais boy, parfois, je vis des moments vraiment alarmants. Franchement, je ne sais pas comment expliquer ça pour vous dire vrai. Pour voir le body de mon Là, ça me touche quoi parce que mosuma la gis état bi ak ni nga mel nii comprendre ma situation bien vrai que xawma li ngay wax bien vrai que tamit li nga dund xaw ko mais Khalil bu ma xamoon qu'on a passé des moments ensemble fi dans cette ap donc so mel ni daf may moi je n'ose même pas te dire que lu ma doon doyee par contre xaw ma ni la la fekkee parce que ma dégg sank boy yu duma wax nan boy organiser benn soirée quoi par rapport ak bon débat bu nous gagné l'autre jour benn soirée ni bon entre camarades de classe je me dis que est-ce que jàll ma la koy wax puisque dans tu es dans cet état. vu la situation ni, xam naa ne da ngeen dem rek sans moi. non hors de question boy. mais boy, loolu war ni mën a ñàkk ba ñu dem lu tax boy, support bu ñu amoon ci ci gars yi ba ñuy affaire bi et tout. donc bu dee benn 30 minutes sax ñu dem fa dem def présence au lieu que nous talk sans rien faire dem len rek je pense que ni mo gën. non loolu du ñu par contre mi ñu ñëpp ñu dem sans yow. waaw on est une équipe tu vois Youssou moom laa ko doon wax léegi salle bi boobu frère la ñu dem. d'accord d'accord c'est pas grave étant donné que da ngeen ni toog pour moi je vais essayer de venir inshallah allah t'inquiète. bu fekkee nag may wax lii pare après jour yi ñëw nga changer idée wax moom sois clair avec moi da ngay ñëw ñu dem ou pas ça va passer je ne sais pas mais ça va passer comme ne sais la pourquoi tu es dans dans cet état mais ça va passer du coup wax ma rek dire, dem ou pas. su ma je damay dem rek. donc damay dem Fatima. oui maa ngi cool. waaw maa ngi lay déglu. yaa ngi fàttaliku bi ma amee woon problème mu mat. yow laa ñëwoon gis la nga boole ma ak nit ba tey macha allah bi résultat yi génne satisfait naa. ñaata nga am. non génn naa ci moom vraiment avec une moyenne de 17. soxna si li nga def ni koo def. man buñ ma wonul mën am 13. en ci loolu laa bëggoon ñu wax si. parce que tey jii su ma ba am sañ-sañu taxaw di wax ak yow je pense que yaa ma ko may man nak damay nek suñu chambre mais damay dégg sa tur parfois ci ay conversation yu bare bare bare mom moom nak euh même pour dul suñu chambre sax même université bi tu es très connu léegi nak sur ce hmm. dama bëggoon ben affaire rek ma waxtaan ak yow surtout mo me le permets yow Fatima sama ndim nga Lini ni ñu bëri sañu ma ko wax sañu ñu ko wax ci université bi donc suma paré pour déglu la amul lenn loy hésité lépp lo xamni ni nga ni daf la naqari ci man permettre na la ko waxal. ok plus pas mo tax yo doo jangi duma jangi et pourtant man damay dem classe dé ku la wax loolu. man yow ñoy wax instant bi lima lay wax yépp dama ko xam am sañ-sañu taxaw di wax ak yow pas yow doo jangi ma laaj la benn question. tu es ici pourquoi. fii dama ñëw ci université bi parce que bëgg naa découvrir nit du bees bëgg naa am relation yu bees mais vraiment pour te dire man au lycée daan naa jàng mais fii parewuma pour jàng et teg naa sama moyen yoo xam ni ku fi génne ak licence dinaa fi génne ak licence bu ñuy sélectionné master dinañ ma jël. instant bi maa ngi mel ni ku nekk ak xale de deux ans bis baa doo xale magum jëmm nga tey ku jàng ba am bak nekkatoo xale yow danga bàyyi ndey bàyyi bàyyi bàyyi pour la pour war a ñëw construire sa ëllëg tey jii am nga ñoo xamante ni si ci yow lañu basé wu mais am na ay ñoo xamante ni ci yow lañu war a basé wu ëllëg man je pense que ni li nga nekk nii def perte de temps la. man j'aurais bien aimé comme ko bëggoo jang nga dem uti leneen loo def parce que fi jang rek du fi métier nga dem defi entrepreneur dem defi leneen ak leneen ak leneen pourquoi nga nek université bi de de di perdre temps alors que jango mais avoir des diplômes avec une tête vide tu trouves ça normal. wax nga lu am solo vraiment li nga wax manam étudiant yu nek master fini, nek sama ay grand mosuñu ma wax ma lu amé solo ni parce que dañuy japp ni suñ mako waxon tay ji dama sen kaw mais Fatima dafa am lu am man ñëwuma université pour am ay notes ñëwuma université aussi pour classe yi chaque jour ma valider jël nek majoru classe bi wala lool nekul sama objectif sama objectif dafa leer sama xel te gi nga nit dañuy wax leen li nga xam ne mën nga ko defar ci sa biir xel ba mu leer nañ nga ko réaliser gi nga lan la tek sama bert. ñew université nek délégué après ma nekk PCS wala ma nekk président d'amical suñu wa kër yoy tay ji ni lu ci bëri ma ngi koy gérer te fi la koy jëlé bir université nga defee ni dama tok ni parewuma dara man damay réussir sama aduna yow da nga japp ni classe yi ñoo la ci mëna a waye man damay tek ay stratégie ay stratégie yu lèr nañ te dina réussir. Puspa est-ce que tu sais que ni tay ñi ngay dimbalé bu ëllëgee tey ñoo lay dimbalé

di taxawaal di ut fu ñu dëkk amuñu fu ñu dëkk mais yéen yéen a nekk ci biir université bi occupé lii occupé chambre yi te pourtant jàngoo leen. fii laay toog di am samay financement projet di ko doxal dëkk ba yar ginaar wala leneen xar nag fatiment bul sonal sa bopp Pispa mi boo wutoon yonent indi ko fii sax du tax mu jubbanti ko